ñun dañoo jox ñi jox seen xaalis sans dépense yi ñëw ak sans dépense yi nguur gi ni leen di taxawoo bu dee benn Gaston Mbengue moo tëgg nguur gi ñëw yëkkati benn xaalis bu takku jox ko huis clos da koy arrangé bu dee benn Alain moo tëgg en fait te jii euh, nguur gi ñëw jox mu comme mu financé benn vingt millions nguur gi jox ko cinq millions kooku bu defee huis clos dafay surux te ñàkk xaalisam la ñu waxante dëgg. bi am na ñu mu arrangé mais am na ñu mu arrangé wul te ñun nag ay mbër lañ dañoo lekk xaalisu jàmbur man du ma wax en tant que mbër quoi damay wax en tant doomu aadama li nga xamante ni mooy mën a satisfaire ma satisfaire promoteur bi satisfaire amateur yi. lu rafet la quoi lu rafet la en fait pour ñu waxtaan ci loolu noonu nekkul ne dañu war a def huis clos by force non non non am na ñoo xam ne bu ñu defee huis clos dañuy daanu. seen xaalis génn na ba pare léegi ñëw ñu jox leen benn somme boo xamante ne satisfeeru leen fayu sax seen ñetti mbër wala fayu seen ñeenti mbër tamit loolu bu ko boo ko defee yow ku doon yow tey doo ko ku ko doon def loolu doo ko def xaarim ànd ak seeg la de pare ku la ko def loolu tey doo def parce que loolu xam nga nit kuy kuy kuy gis a tool da nga xalaat maanaam meññeef bu bu bu bu bu la mën a satisfaire ba. mais mënoo gis a tool def ci trois cent mille bëgg ci xaar cent mille franc balaa càkkoon nga dem defi leneen. ñi ko ñi ko mën daal lañ ko def ñi ko mënul xam nga ñu xaar man loolu mooy sama xalaat quoi wala ñu xool nu nguur gi woyofalee affaire yi tamit xam nga ba ñëpp mën ci tëgg gis seen bopp parce que làmb dafa yaatu ñi ciy tedd dafa bari làmb tey boo nee huis clos dèjà jaaykat ba du ñëw keneen keneen du ñëw ñu dul ñëw bari na te làmb ñu ciy dund dafa bari avance mbër ñu ciy dund bari na promoteur bi lii xaalisam ñu ciy dund bari na bu buñ gisee nee rek tëgg wii club bi mooy solution bi rek ñu bëgg ko forcer ñëpp nañ xool ñi nga xamante ni arrangé na leen ñu def ko ñi ko mënul bu ñu mënee jàppale ñu def ko ñu def ko loolu moo gën ko ak ñu jékki-jékki rek ne ku mën a tëgg wii club nga tëgg wii club ku mënul tëgg nga bàyyi fekk na nit ñi léegi jox nañ en su pare